point de la rédaction ci suñu Sunugal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dem mbégte saa su nekk di ànd ak yéen ci programme Sunugal 24 ginnaaw bu ma fi wutoo tey El Hadji Mahfous dafa am lu ko tënk ñu fas yéene faram fàcce li nga xam ne moom moo di actualité fait divers comme niñ koy defee saa su nekk rek ma ciy ànd ak Moustapha Mbaye tey ñu fas yéene wax ci actualité bi nga xam ne moo am ci réew mi di Sénégal mu di coowal Ousmane Sonko Adji Sarr ma ciy ànd ak ki nga xam ne moom moo di Moustapha mbay comme ni mu koy defee rek ma bàyyi ko mu nuyoo ak ñu ñuy seetaan Moustapha maa ngi lay lay nuyu di la bu baax a baax. maa ngi lay fay soxna Eva di am mbégte tamit eh, buy yaatu di ànd ak yow ci plateau bi nga fi wutu Cheikh Mahfous. ba yaa ngi am jàmm. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax soj maa ngi wàcc. waa wàcc na sa jeex na sax mën nañu wax loolu <laughs> yow war na laa bàyyi na wàcc bu baax a baax waaw dem na bu baax moom merci beaucoup Moustapha di am mbégte bu baax a baax di ànd ak yow ginnaaw bu ma fi wutoo Mahfous comme ni ma la ko junjee sànq ñu fas yéene waxtaane li nga xam ne moom moo di actualité boo xam ne yaakaar mm-hmm. naa ne ñëpp a ngi ci wax mu di coowal Ousmane Sonko Adji Sarr démb ñu seetlu li nga xamante ne nii moom moo di ñu ñu euh, jàppoon ci euh, ba ñuy manifester wu ca cité kër góor gi moo di pro Sonko yi jotoon fa yàq ay bagages yu baree bari taal fay oto ba lu toll ay euh, ñaar fukki nit wala lu ko jotoon nañ leen ci mhm. teg loxo waaye daal di nañuy janoo démb ak procureur bi ba jamono ji daal di nañ leen di placer sous mandat de dépôt ca Cap Manuel. Mhm. ñu gis itam ne jamono ji ñu ngi ñaaw jort ne ginnaaw bi loolu amee beneen plainte boo xam ne mën naa toppwaat ci ginnaaw Ousmane Sonko mu di li nga xam ne moom la ñuy wax euh, euh, l' insurrection. appel à l' insurrection. voilà appel à l' insurrection mën na toppaat ci ginnaaw ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ndaxte moom la ñu wax ne moom moo waxoon ndaw ñi ne ñu génn xam nga ci bi muy def déclaration bi ci këram. Mm-hmm. loolu tamit euh, ban lecture nga ci am. waaw soxna Eva comme ni nga ko waxee rek démb noonu noonu noonu lañ ko amee ñoom démb mujjee na am ñoo xamante ne dañ leen placé sous mandat de dépôt maanaam caabi féete na leen ginnaaw am si ñoo xamante ne bàyyi nañ leen ñu ñibbi seen kër waaye tamit mu am ci kenn koo xam ne su contrôle judiciaire lañ ko def mi benn mineur mm-hmm. boo xamante ne dañoo jàpp ne atam xam naa moo tax sax ñu defal ko loolu mais nag ñu fàttali tamit ñoom ñi nga xam ne li ñu leen di topp ñoom ñëpp dañ koo miim nanguwuñu ko bu weesoo benn ngóor si ndóoy mi nga xamante ne moom lañ gis ci image ne moom lañ doon taal moom moo doon taal oto yi moom moo doon def yooyu yooyu moom moo doon taal daal maanaam mm-hmm. te ñeneen ñëpp ak ñëpp sax moom sax ñëpp dañoo weddi amul kenn ku nangu li nga xamante ne moom lañ koy toppoo parce que bu ñu xoolee tamit euh, chef d'accusation yi xam ne dañoo teg seen kaw dañ dañ ko teg seen kaw du lu tuuti mhm. loolu sax moo tiital ñu bëri ba bi ñu ko gisee parce que fekkete nit ki da nga koy topp lu ci mel ni incendie criminel mhm. nga koy topp ci organisation boo xamante ne da ngeen koy def pour def insurrection maanaam pour yëkkati fitna ak yu ni mel mhm. ñu lay topp ci loo xamante ne destruction de biens à l'état la maanaam caxat loo xamante ne état moo ko moom ñu lay topp ci ne da nga da nga da nga tooñ wala da nga song koo xamante ne agent la boo xamante ne dafa nekk ci service dafa nekk di liggéey maanaam takk der yeeg

parce que xam na ne am na yeneen yu jëm Ousmane Sonko dinañ ko woo mu dem wuyu ji dëkk bi mën nañ jugaat mais buñ déggee ne ah ñi kat fañ leen fañ leen nar a àttee wala ñi ngi dem mm-hmm. parce que instruction bi du am àpp xam nga bu doon euh, matière bu doon flagrant délit la mm-hmm. bu dee flagrant bu ñu la jàppee rek audience bi semaine bi stop rek ngeen am ngeen dem audience ñu àtte leen ngeen dem. Mhm. mais bu fekkente ne correctionnel la tamit bu ngeen mën na dem ba 6 mois du weesu 6 mois nga ngeen toog xaar ñu def euh, mbir mi après ñu ñu àtte leen mais bu dee criminel la matière criminelle la dafay daf du am àpp. Mhm. loolu sax droit de l'homme yi ñu ngi koy xeex di ko parce que loolu mooy war nga gis nit koo xam ne dañuy jàpp ne moo faat nit. buñ ko bu balaa buñ ko yóbboo ci ginnaaw gri rek dañ ko fay fàtte daanaka. Mhm. mu naan mu nga waral nga gis naan tëdd naa ñetti at ñeenti at kenn àtteewu ma. Mhm. nañ ko àtte nañ ko àtte. Mhm. genre yooyu souvent lu ñu wax sax nañ fexe bu wëral ko àpp loolu moo waral nag lu bari nit ñi di am xel boo xamante ne benn signal la boo xam ne dañ koo bëgg def pour tiital leen. loolu lecture bi nga xam ne seen avocat moo ko def mais lépp lu ci mënta am rek loolu mooy fee am ñi ngi xool nag ci ci biir loolu nag procureur dafay wër x. waaw ñoo ñëw ci x boobu sax loolu noonu nga xamante ne procureur moom la chef d' euh, accusation yooyu mu teg seen kaw bu fekkente ne doyen des juges dëggal na ko dina metti si ñoom mais nag ñu ngi xool peut-être mbir yi après dinañ am ci kanam yeneen évolution yoo xamante ne dinañ xam ndax foofu lañ jëm wala duñ fa dem après on verra ak tout dépend ci euh, suite procédure bi waaye comme ni ma ko waxee léegi procureur dafay wër x te mhm. x boobu nit ñi dañuy njortu mu doon Ousmane Sonko du kenn ku dul Ousmane Sonko mhm. ba tax na ñu jàpp ne kon bu moytul mbirum viol bi ko topp beneen mbirum boo xamante ne mbirum woote boo xamante ne yëkkati fitna dina ko toppaat mhm. mu doon ñaari mbir yoo xamante ne bu moytul dina ko layoo eh, bu bi mën na am jafe pour rëcc ci bële wala mm-hmm. mm-hmm. a jàkkaarloo ak ñoom euh, ñu des ci problème Ousmane Sonko ak Adji ba léegi mais euh, ci beneen fànn dañu gis ki nga xam ne moom moo di euh, propriétaire u salon bi di Ndeye Ndeye Khady Ndiaye mm-hmm. à chaque fois day génn di def ay sorties mais ay waxam day juwoo ba ci procès verbaux yi nga xam ne Pa Alé Niang dal di ñu koy fësal démb mu dalalaat ko ci li nga xam ne moom moo di émission bi muy def ngir mu gën a faram-fàccee gën a indi ay leeral ah, ci li nga xam ne moom moo di jafe-jafe yi ñu nemmeeku ci diggante Ousmane Sonko Adji Sarr fee yi ndaka la demee ah, fan la nekkoon bi événement bi di am ak lépp mu leeral ko mais dañoo gis ne dafa am waroo ak li nga xam ne moom moo di euh, procès verbaux yi euh, loolu ban lecture nga ci am ak yan jafe la mën a juralaat ndey ndey Fatou Ndeye Khady Ndiaye di moins ak ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ba ci aji Sarr waaw comme ni nga ko waxee ñun ñëpp ñoo ko gisandoo balaa maa ñëw ci euh, sotti yu bëri yooyu mi def damay ñëw ci procès verbaux yi parce démb maa ngi mu indi woon ay wax yu bëri di si am entre confrères ñi naan Pape Alé Niang li mu def war ko woon a def ñoom Ahmed Aïdara reprendre nañ ko ce matin bon hier matin di ci wax tamit ku nekk di critiquer xam nga dañoo toll benn milieu boo xamante ne d'accord concurrence am na mais lépp lu nit di wax rek je pense que nañ nañ nañ koy rafetal. Mm-hmm. parce que man ñi ma gisee m mu jàngee procès yi da doon liir di wax. Mm-hmm. am na nag ñu ne organe bu mu ci mënoon doon tamit boo amee procès verbaux yi da koy da koy da koy jaay soit di ko def texte wala nga def ko vidéo wala nga am neneen noo ko waxee mm-hmm. je pense que boo bu mbir amee amoo ko na nga nekk koo xamante ne rek da ngay fair play comme ni ñu koy waxee si langage sportif bi na fair play accepté ne sa morom am na primeur boobu génnee na ko nga nangul ko ko bañ dugg ci logique gu guerre bi nga xam ne ci wax lu amul mhm. ah dinañ gis ne léegi gendarmerie dina jóg parce que su boobaa ñoom lay tuumal wala mu sosal leen te bu loolu amee gendarmerie dina jóg taxaw ci mhm. donc loolu mbir la boo xamante ne pour man du débat boobu ne journaliste war nañ ko alimenter wala ñuy dugg ci terrain boobu su ma retourné ma ñëw ci euh, mbirum Ndeye Khady Ndiaye boobu nga xamante ne démb jëlaat nañ ko tamit ci benn Euh, site internet euh, Dakar Matin. mu mm-hmm. fooy mu wax fa defaat fa benn sorte bi dafa retracé mbir mi nu mu demee lépp wuuteeg bu njëkk bi nga xam ne moom la defoon. Mm-hmm. waaye tamit nga noté si comme ni nga ko waxee léegi bi nga wax ay contradiction yoo xamante ne. Mm-hmm. maanaam ci ñetti génn yi mu génn. ba mu njëkk a def euh, procès verbal bi Pape Alé liir ak bi mu defaat démb man su ma ko doon conseil dama naan kaan mu bàyyi sortie yi muy def. mu bàyyi sortie yi muy def parce que démb war woon sax génnaat jaru ko woon parce finalement def na ay précision wax na ni ko gendarme yi doon toppee ni ñu ko sonalee ak yooyu yëpp d'accord mais pour man sortie bi c'était inutile jaru ko parce que moment bi ki nga xamante ne mooy ndey mili ji di Adji Sarr mi ngi ne patt ci ruxam keneen ki nga xamante ne moom la moo ko séqal mi Ousmane Sonko mi nga ne patt ci ruxam ba mu defee déclaration ba léegi pour man ñaari nekk bu ko weesoo ñeneen ñi si nekk yëpp ay éléments yoo xam ne dañuy gravité ci ñaar ñi nga xamante ne bu doon film la mën a ñoom ñaar ñooy acteurs principaux yi maintenant ñeneen nag nekk ci ginnaaw ku nekk di wax di wax di wax di wax di wax day dolli confusion dolli jaxase pour man jamono ji dëgg la mi ngi leeral di day jéem a teggi tuuma parce que euh, sortie bu njëkk bi mu defoon c'était vraiment catastrophique ñëpp gisoon nañ ne amoon ay contradiction yoo xam ne c'était vraiment flagrante ba ñu jàppoon ne ndaw si bon li muy wax tegwul wala c'était normal mu génnaan jéem a jéem a setal dara mais pour man jaru ko woon mm-hmm. mënoon na denc ñu wax rek jàpp ñaam borom que de maa ngi avancé di leer ay kanam yu bees di génn ay nit ñi di xam kii moo waxoon li kii moo def li kii moo yebal kii donc bu ñuy avancé rek dëgg moom loo ko suul suul mu feeñ. comme mhm. ker rek bu loo ko li ñu naan suul ker du ko du ko teree feeñ. suul ker du ko teree feeñ tay da ngay jàng mhm. wax olof de ah. Mhm. <laughs> waa ñu jàll ci li nga xam ne moom moo di troisième question bi nit ñi dañuy laaj jamono ji fan la Adji Sarr nekk dem nañ sax ba ki nga xam ne moom moo di avocam am léegi maître El Hadj Diouf nee na Adji Sarr mi ngi ci ay loxo yu wóor mais moom mi waral coow li ba tey jii kenn gisu ko mu wax léegi yow sa jàngat jàngat wala sa gis-gis fan la Adji Sarr war a mën a nekk. waa tekk tekkaaral goo xamante ne na ñu bëri yëm nañu bëri parce que. elle n'est pas obligée mu wax parce que kenn obligé war a amul nekkul ci obligation boo xam ne dafa war a wax mais tekk tekkaaral bu yéemul bari la lu tax mu yéem ñu bëri parce que dañ daan gis nit ki ndaw wala xale wala mag kuñ ci masaana sàkk wala yu ni mel da ngay gis ay mbokkam dina am ku génn jëlal ko défense ay mbokkam ñi ko jege bokk mm-hmm. dina am ku génn taxaw ne dañoo sàkk sama nangam wala yumpaañam wala maamam wala tantam wala wala yaa xam ku ko jege mm-hmm. wala magam wala rakkam ku taxaw ne man lii ñu def sumik dina taxaw mais amul kenn kenn kenn koo xamante ne dafa taxaw dafa mel nii comme si amul ndey amul bàyyi amul mag amul rak amul dara dañ ko bàyyi noonu rek moom te moom tamit mu daal di tëju génnul kenn gisu ko xam nga loolu bu ko defee dafay mel ni benn camp kese ngay gis muy wax te dafay gën a dëggal teesu complot nit ñi dañ koy wax. Mm-hmm. parce que dañuy jàpp ne bu dul woon complot dina may argue dina may argument dina am suffisamment d'arme pour mm-hmm. jàkkaarloo ak ñoom tontu leen mm-hmm. mais xam nga fekkente ne amoo arme amoo loo tontoo mënoo tontu dañ la naan bul di wax. parce que boo waxee rek benn moo boo wax mën nañ ko interpréter wala benn mot boo wax rek mën na la mën mën nañ ko tourner mu sonal la après moo tax tey ji tekk tekkaaralam googu day doon loo xamante ne pour man euh, benn manque d'argument mën na mën na mën na ko justifier lan lan lay wax nit ñi su génne lan na leen di expliquer parce que avocat ba bi bii doog génne El Hadj Diouf mi ngi doog a commencé génn def ay sorties di justifier tekk tekkaaralam beeg yooyu yëpp mais euh, je vois mu taxaw am nu mu ko expliquer que na loo xam ne expliqué na ko ak borom borom salon bi te ñooñu tey ji bu waxee dofuñu ñi ngi fii di dund di ko dégg bu waxee xam nañ lu waxu xam nañ lu tegu ak lu tegu mais euh, foofu benn immature bu nekkoon ci moom maanaam xale kii xale mooy wax mais bi coow li amee dañu sentir que ni ku moo taxaw est-ce que tey ji en réalité moom génnul ci coobarey boppam est-ce que du dañ ko ko entouré di ko naan defal nii nii defal nii ni mu ko defee ak coow li mu amee nii bu doon ci coobarey boppam âge bi am wala immature bi ñu sentiroon ci moom au début kon Adji Sarr ba léegi génn na jano ak taskati xibaar yi wax comme ni mu ko defee woon ci ci ci njaal benn gi. non c'est sûr mooy xam nga elle est naan ture hmm. loolu kenn waxatu ko parce que koo xamante ne wotaa la jëlee ci biir ku digg ku wur fa ñu ne da ngaa ànd ak médecin beneen avocat dugal na ci loxoom nga bind plainte bu boo xamante ne étudiant droit sax boo ko joxee boo metu boo metu mu am problème pour bind ko hmm. plainte bu wow koŋ. jaar foofu yëpp koo xam nga ne ay cuune waruñu ko. Mhm. elle bien entourée te loolu lépp c' est bien calculé c' prémédité alors loolu nag boo gisee boo boo gisee tey jii da dafay dafay wane rek ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne soxna aji Sarr bi dafa nekk benn élément boo xam ne dafa bokk ci pièce boo xamante ne malheureusement. Mhm. xam nga yenn saa nga dugg ci mbir doo xam fu mu la jëmee. di nga dugg ci mbir tey ji par exemple nga nga dugg na ay man lii di su ma xamoon lii fii la ma jëmee doo xam après ampleur bi mu jëm parce que naa naan lii du dara lii boo ko defee rek après xam nga da dañ koy coow ñetti fan Sénégal ñetti fan ñaari fan lañ koy def bàyyi la te xamuñu ne lii histoire daf koo bind daf daf daf koy taarix daf koy daf koy retenir kenn mënu koo fàtte parce que tuuma ji ki mu dal la di koo xamante ne histoire dafa dafa daf ko bind ba pare parce que moo fi nekk koo xamante ne homme politique la demee demee assemblée nationale plus fort reste ñu teg cee at mu dem e, présidentielle dal di jël troisième. Mm-hmm. Euh, ci ginnaaw ñoo xamante ne jàgg nañoo dem présidentielle yàgg nañoo xeex def jéego yoo xamante ne. am benn espoir bu mu suscité jeunes yi loolu lépp mu def ko tey ji booy bind histoire Sonko nga bind ko mënoo bind bind ba mu jeex te bindoo Adji Sarr ci gi mhm. mënul nekk kon kooku tey ji même su fekkente ne dañ koo dugal ci mbir mi bu nekk ci victime tamit peut-être dama yaakaar ne sóoru woon ampleur bi mbir mi di jël après ndax lii bu fekkente ne dama ba léegi damay supposé bu fekkente ne parce que du ma ne dañ ko see dugal tamit mhm. euh, demaguñu ci yoon ba mu leeral bu fekkente ne dañ ko see dugal tamit pour man ñàkk na def na loo xamante ne daal def na loo xam ne deful mhm. turam dina tilim tilim goo xamante ne malheureusement dina dugg ci histoire te dugg boo xamante ne kenn du ñaan ëllëg sa yaay wala sa mag wala sa rakk duggee ko noonu ci histoire. Euh, ñu gis ba tey ci histoire bi nit ñi ñu ngi commencé wu surtout ñi nga xamante ne ni euh, ñu ngi ci lii di wàllum défense maanaam avocat yi gën a mag ñu ngi commencé wu di intéressé wu ci affaire Ousmane Sonko dem fare ji ay ay camp mën nañ ci site gu ci mel ni maître Clédor euh, mu nekk nit boo xam ne wax dëgg yàlla nit ñi xam nañ ko ci ci réew mi ci côté défense ak ci côté boobu ne jot na tëju ak Ousmane Sonko lu ëpp trois heures de temps waxtaan ak moom mm-hmm. mu xam ne lii euh, thèse bi complot la li waral jamono ji mu daal di jël décision pour dem defendre ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko loolu itam ban lecture nga ci am Moustapha waaye gis nañ jot jot nañ nouvelle boobu maître Ciré Clédor Ly léegi dafay dem bokk ci ci pour l'avocat bi nga xam ne ñooy défendre mm-hmm. benn pénaliste boo xamante ne euh, xam-xamam wala euh, kàngamam bi mu doon kenn kenn kenn du ko naatable fii ci Sénégal mm-hmm. parce que gis nañ ni mu ràññeeku woon ci mbirum traque des biens mal acquis ak Karim Wade mbirum caisse d'avance bi tamit taxawaay bi mu ci amoon tey ji bi mbirum Ousmane Sonko ñëwaatee mu taxaw ci donc ngay xam ne kon mën na ne avocat la boo xamante ne du raté jamais les les grands procès wala dossiers yu mag yëpp dañ ko ciy gis mu dugg ci parce que loolu xarañteem moo waral mm-hmm. euh, tey ji mu doon mu am ci taxawaay mais dañuy gis tamit ni muy justifier bokk gi mu bokk ci mbir mi parce que dafa jàpp ne benn complot la boo xam ne dañ koo nas mhm. pour daaneel benn opposant te ñi ko nas nekkuñ seen coup bu njëkk yàgg nañoo nas ay ay ay complot di daaneel ay opposant mhm. moo waral mu ne daf ciy bokk nag ngir indil ko ngir indil ko soutien am taxawu ko ba du bokk si ñi nga xamante ne ñii nas ay pexe ngir daaneel ay opposant nañ ko daaneel mhm. alors mbir moo xamante ne nag boo ko boo ko boo ko jàngatee benn force lay doon de plus boo xam ne dina jàppale kii di Ousmane Sonko ci défense am parce que soxla yi mu expliquer lépp mm-hmm. bien vrai que parfois nga dégg benn version fii déggaat benn version fële mu am confusion yu bëri mais yaakaar naa ne ay avocat yu baax ay avocat yu taxaw avocat yu am xam-xam mm-hmm. dañoo baax ci layoo même su fekkente ne da nga jàpp ne gagné nga ba pare sax mm-hmm. dañ lay conseil nga am ay conseil yu baax yoo xamante ne dinañ la mën a layool dinañ la mën a dimbali euh, bis booy dem di jàkkaarloo ji ak ñi nga xamante ne ñooy waaye enquête kat yi comme ni mu duggee noonu la maître El Hadj Diouf duggee fële yomb du yomb mm. du yomb parce que avocat yi ñoom ñaar kese nga cité mais boo cité ku mel ni tamit euh, Bamba man maa ngi ko ràññewoon ci procès Abdoul Mbaye bi ak mm-hmm. euh, mu dafa taxawaay am yu am solo sax euh, maître ak Demba Bathily mm-hmm. ay maître yoo ñoo ay avocat yu aay ah boobu rek laa wax mais tamit bëri nañu ay avocat yoo xam ne fii Sénégal aay nañ trop ba boo leen dégloo seen seen boo demee assister fële tribunal bu ñuy bu ñuy ñooñu bu ñuy plaider da ngay xam ne ñii vraiment dañoo maîtriser li ñuy def. te tôt ou tard peut-être mën nañu gisaat yeneen avocats yi ñëw. faral di du ci ñàkk voilà comme ni ko euh, maître Ciré Clédor defee yeneen avocats yi mën nañ ñëw Moustapha li moo doonoon suñu waxtaan tey ci li nga xam ne moom moo di euh, point de la rédaction euh, lan nga ñuy may comme ni nga ñu ko daan defee rek analyse wala ban message ngay jàllale. waaw message bi may jàllale rek euh, je pense que mooy euh, lu jëm ci wàllum euh, Ousmane Sonko bi ak ndaw si. Mm-hmm. xam nga parfois am na ñoo xam ne côté information bi traitement bi ñu bëri ñu ngi koy jàmbat di ko jooy. Mm-hmm. dañuy taxañ jëmale ci Ousmane Sonko journaliste yi ñu bëri si ñoom dañoo far ci Ousmane Sonko mais su fekkente ne beneen parti bi da ngay jéem a dem ginnaaw raay xale bi mënoo fexe ba yaayam wax mënoo fexe ba papaam wax mënoo fexe astafurlah dégg naa ñu ne papaam dafa génn liggéey yaayam nekku fi yaayam moo gaañu papaam nekku fi alors waaw noonu la demee si ñoom ñaar Euh, kooku amul kenn ko amul amul benn accessibilité boo xam ne ñi ko ñu ko jege am nañ ko te ñëlee boo demee il fait elle fait face à un homme politique boo xam ne dafa am ay chargé de communication mhm. am responsable de cadres responsable des jeunes mais ñooñu ñëpp ñëpp ñëpp mën nañoo expliquer mën nañu wax ci kanam Ousmane Sonko mhm. coow li am na beneen camp bañ naa wax benn camp bi di wax lu ñu bëgg ñu toog ne du ñu jël benn camp mu wax mais si quand Ousmane Sonko ñoo nangu toog di expliqué heureusement ba gis nañ récemment ki nga xamante ne mooy euh, maître El Hadj Diouf mi ngi commencé def ay sorties moom tamit di ko jàppale di jàppale ndaw si. Mm-hmm. dina ci baax moom tamit ñu koy wax mu accessible. Mm-hmm. ci plateau yëpp fu ñu ko woo mu dem toog fu ñu ko woo mu dem wax. comme moom da moo fi nekk pour waxal ko jamono ji mm-hmm. je pense que dina ko arrangé parce que soxla na ko tekk tekkaaral bi arrangé ko parce que tamit nit ñi opinion bi image bi ñu décrire ci moom rafetul mm-hmm. donc am na benn image boo xamante ne vraiment bu négative la nit ñi ci moom mm-hmm. avocat mi ngi defay effort pour jëm ko redorer image boobu noonu euh, dinañ dinañ xool ce que ce que incha allah ci côté bu négatif boobu sax laa lay rejoindre que euh, du ñàkk peut-être nit ñaa ngi ci moom mais à chaque fois lu négatif ngay gis que ñi ko ko ko na euh, am problème mu viol et genre loolu beneen affaire la euh, mu nekkoon suñu moom moo di euh, point de la rédaction ba di la bu baax a baax. ma lay jaajëfal soxna di am jox di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci beneen point de la rédaction di gërëm bu baax a baax li baas mi nekkoon ci réalisation bi ak technique bi di ko wax ne ko benn nit ñaar ba ñetti caméra mi chers internautes abonné leen activer seen i cloche de notification mën a am suñu vidéo temps réel. D'ici là, portez-vous bien et merci beaucoup.